ñu am taw feexu nag kon muy jataay boo xam ni euh, nii ñu ko amee woon daaw jéeg xam ngeen ne dogantal doxoon na fi Serigne Mountakha joxewaat ndigal ren mu am gis ngeen kon ñi nga xam ne ñëpp kenn ku ci ne euh, yaa ngi yëg mbégte ci jataayu Serigne bi ci dund xasida yi ci daaj yi nga xam ne tey euh, waa kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah ñoo ko ay woon bu nee kuréel 1 rek mooy kuréel bu mag bi nga xam ne sëñ Ablaye Diop di ko jiite ñu féete ñi ci ëpp Dakar waaye am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci yi te ñu bokk ci kuréel gi muy liggéey bu am solo boo xam ni am nañu pas-pas ko ànd kook yéen ba keroog weer bi di mat fidèles téléspectateurs de Al Mouridiyyah vous avez vécu cette première journée de cette prestation des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba c'est un programme qui est un protocole immuable depuis l'année dernière euh, où il y a eu cette interruption mais euh, l'année précédente vous l'avez vécu avec nous et nous avons euh, pris le parti de le vivre avec vous pendant tous ces trois mois tous ces trois euh, trente jours du mois et ce sera un programme euh, qui va continuer. Et pour rappel, c'est un programme qui entre de plein pied dans cette vivification de ce mois béni, ce mois à l'endroit duquel le Cheikh n'a pas tiré d'arrêt d'éloge, nous l'avons dit, il l'appelait l'éminent hôte, il l'appelait le mois qui fait disparaître tous les péchés, il l'appelait euh, l'hôte prestigieux, et c'était un moment qu'il avait à cœur de vivre. Et Cheikh Mountaka nous a donné le privilège de pouvoir le vivre ici à Touba. et nous sommes au niveau de la résidence des hôtes de Serigne Touba située à l'ouest de la grande mosquée de Touba en compagnie du kuréel de Hizbut Tarqiyyah euh, demain un autre kuréel va venir et aura la charge de faire la déclamation devant Serigne Mountakha jusqu'à la fin de l'année euh, jusqu'à la fin pardon de et c'était donc euh, un programme que vous avez vécu en direct avec euh, l'équipe euh, audiovisuelle l'équipe de avec les reporters les techniciens et tous y ont mis le cœur pour pouvoir faire une transmission digne de ce nom et c'est également un travail comme l'avons qui va continuer demain Inch'Allah le premier va le faire pour la présentation du programme et vous l'avez vu sur les images le khalife est en train de regagner l'espace à résidence avec l'accompagnement d'un autre kuréel qui va le raccompagner comme il a été Euh, comme il y a eu un courriel qui, va, qui, qui est et ce sera également un raccompagnement dans une euh, prestation, des plus suaves. Et ce donc ce moment, je crois que vous l'avez moment fort, euh, 17h30 chaque jour, à partir euh, de, de, la résidence du, euh, des hôtes de Sering Touba. Et nous avons pris parti et nous pris la décision nous avons fait le serment de vous faire vivre tous ces moments et pendant tous les jours que durera ce mois béni de Ramadan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal